of my tumar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 وصلى الله على من بعث لإقامة الحجة والبرهان سيدي بني عدنان ينبوع الحكمة والعرفان وعين الرحمة الرحمن وعلى آله وصحبه الذين أيدوا أركان الدين وشيدوها خير تشديد ورضي الله عنهم أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدين الكرام نحييكم من تحت الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ما نيو نيو واسفيائي دلن زيارة دلن دلل كبير بتدبي دبر مم الفاهم يا ربلي أك سما جربات دي كان يذكر جد جابوت اسم الحافظ أحمد جوب دي رفع لسنتي واي li bokk ak yéen mbég ci sukk ci kanamu Fahmirul ñaan yàlla mu ñuy tëbb ay leer daayiman incha allah. waaw diggante moom Alpha ak Alxaaj Malick ni ko koy waxee moom Alpha mooy Alpha di Oméga ak Alxaaj Malick wax ci Alxaaj Malick ba ci Alxaaj di doon li mu doon ma Alpha loxo mu ci biir macha allah ndax yàlla dogal na lépp loo gis rek damay faral di wax ni. picc su xasee su génnee ci tàgg am na mu mel ci taar xel dinañ ci tàgg bu bu baax macha allah Cheikh Hadj Malick environnement bu mu nekkoon moo doon environnement boo xam ni moo mën a tax mu mën a mu nekk ci condition yoo xam ni euh, li mu mën a dajale ci xam-xam ak ci leer ak ci wilaaya dina ko mën a dajale bu mu mat macha allah yàlla dogaloon nag maam Alfahim Yoro doon kenn ci Cheikh Malick Fouti ndax euh, li waral Cheikh Al Hadj Malick lay indi ndax Cheikh Al Hadj moom Alpha bu mu fi jógee ànd ak waa gaaya dem ci Cheikh Malick Fouti pour ñaan pour dem yóbbu yóbbul waa gaaya ci jihaad ndax dem ñaani wërd yóbbu bëggoon foofu bi yàlla dogalee Cheikh Omar jaaroon gaaya defoon fi moom six mois jàngale na fi Qur'an taalif na fi téere bu tudd gaaya téere lasraar bi yàlla dogalee ci mbaaxam Cheikh Omar lu Fuuta di di taxawal jihaad ndax jamono bi mu fi nekkee fekk na man faa wàdde mi doon yaayu Cheikh Alxaaj Malik am ñaari borom kër yàlla weddi borom kër bu njëkk bi nag muy cousin moom boo xam ni ñoom ñaar seen ñaari baay bokk benn ndey muy Alioune Niang ma ñu Babacar moo ko jur man faa wàdd Bakari moo ko jur mbëkk rek ma ñu beneen day far bu jóg ma leen jur yàlla ci mbaaxam may ko ko yàlla ak dogalam seen diggante yàlla weddi ñoom ci benn doom muy soxna fantañam muy yaayu sëñ Cheikh Abdou bu Tiwaawan bi jàngal sëriñ Cheikh ak sëñ Mansour ba mu daara ji yàlla weddi diggante boobu ñu may ko ku ñu wax Maxtaar Fall sëriñ Kadiar Makhtar Fall mu nekkoon sëriñ Kadiar ci dëkk bi ñëpp xam nañu bu njëkk buur dafa doon da doon am moom nag moo doonoon nguur gi ci jamono jooju ñu may ko ko mu am ci Abdou Bori Fall mu demee Abdou Bori tamit yàlla ñëw ak dogalam yàlla weddiwaat diggante bi ah mu ne ah ay lay woon bis ñi comme am naa ñaari yoon borom kër buur yàlla weddi man faawaat bis ñi lépp luy sëy ak la ci aju jëndee naa ko yenn xeet nawaafil maanaam wan naa ko ginnaaw di jaamu yàlla ci yenn xeetu jaamu yàlla bu bokkul ak sëy yàlla def nag muy dem ci daara yi di xool xale yi seen yëri di leen gaaral seen yëri yi leen ko fóotal muy daara bi nekk seen kër kër baayam kër Bakari tàmbalee foofu daara Thierno Malick Sow ak yeneen daara yi fi nekk yëpp ci dëkk bi yoo xam ni lox dooleem ak jotam may na ko ba yegg ci ñoom ngir jàppale leen ak kilifa yoo xam daan nañ ñëw ci dëkk bi mu leen di jàppale ci wàllu fóot ci wàllu teraanga yoo xam ni daan na ko def diggante mu ñoom ba yàlla dog lay Cheikh Omar ñëw fi nekk biir gi mu fi nekk fekk moom alfa ginnaaw bu mu jàngee ci way juróom ba jàng quran moom moom fa war ba wàcc mu continue jàng fiq ci papaam bakkar ba yàlla dogal am fu mu ci yegg mu ne damay dem yokk sama xam-xam maa fa dem Pire université bi Pire sañu xool fa la jàngee fa la génnee ci ñaareelu contingent ba mu ñibbi si gaaya nag doon fóore donc Cheikh Omar bu ñëwee gaaya ñu orienté ko ci moom Alpha jaadu na ndax borom xam-xam la woon nekkin boobu ñu nekkoon nag ba yàlla def Cheikh Omar dellu bu mu delloo ba njëg ni dafay taal jihaad waa gars yi ne ah sëriñ bu baax bu fi nekkoon di Cheikh Ahmad Fouti buy taal jihaad ñu ba ñëpp di ko jàppale yàlla na si ñun waa gars yi ñu jàppale ko loolu amee yàlla def ci mbaaxam mam fawat tamit ni waa gars yi bu ñuy jàppale Cheikh Ahmad ñun ñi nga xam ne ñun la ko noonu la taxal yàlla na dara jóge ci ñun dem fekk mbir moom incha allah ci la rabee sërëm boobu جقرم ألف نك بول ما وجه المقسمة تعمل با ما شاء الله ما ألف نك يوب بسير بوبا بالمتان لو تسير ما يفرق لو هرقني دا يو سير بي شال حاج مالك لا ما يدو سير بي بي ديك وخي جامنو دا يميل نبرولون سير بي شال حاج مالك لو دون لمو دون فشال حاج مالك يتي موكا بميل لما أم نخسن بي منصور ولا كنن تكلفي كنيون في ماي في كورس بيجر نعرف كدرم yow nga may fi course bu bees bu jar cent mille francs course am ba la ñuy tudd donte néew na prix ndax dayoom kon sër moom fa war na moom li ko jox valeur dëgg dëgg dëgg ci alxaaj Malik la waaye sër la ci sër yi rek yóbbal la ñu bañ ko ñu bañ jël te ci alxaaj Malik di ko lëkkale ak sër boobu ndax bu yàlla dogalee ñu dem ba Cheikh Omar bu ñu ne ba jub xoore fonde comme fii ak un kilomètre moo fa dafa nañ leen toog ñu toog te bu nan nañ toog nee nañ ko mais tund bi ngi ñu soriwul mën nañ toog diir rek ñu toog bu ñu pare mën nañ dem mën ñu ne ko déedéet toogaay bi lan la mu ne leen bi ñuy toog fekk na Cheikh Omar Fouti yi mi ngi jàngal ay taalibeem ay taalibe jinne di leen jox fiq dar su ci wàllu fiq te bëgg moon ñu déranger ko kon ñaari station am na ci bu njëkk bi mooy mooy moom Alpha bi mu fiy jógee ba muy yegg mi ngi nekk en connexion permanente ak Cheikh Omar moo tax mun xam loolu ñaareel ba neen nguur ñu ñu déranger ko xam na ne bu yegsee Cheikh Omar génn danga wax ji de bi ñu demee ci Cheikh ba fu ñu jaar ak moom ci sérieux ak lañ ci wax yëpp day gudd ñu tënk ko foofu rek Cheikh Omar wax nañ ne dafa génn alpha an sama sër waaye nañ ndàpp moom alpha muy dem foofu dul alpha déedéet alpha gi daf ko ndàpp ca jihaad ja waaye du foofu xamni wax yo xam fa bëndiko hmm. ak ko mënti di wax nak hmm. bu yalla ndogale nak cheikh omar di ma ma fa ñan ko wërd ko ñan ko wërd wax nañ ñi fa demon ñep ñan nañ wërd may lu wërd te wërd may al fahim yoro may ñu ko wërd te may ko da ijaza itlaq cheikh omar ni ki mo moy seen njit moy seen muqaddam te mo te gëna ndaw 25 ans la lolu c'est édifiant donc hmm. ne ki am na prédisposition yo xamni ñi mu andalon xamnu ko ba mu ñibbisee bi ñibbisee gaaya noonu fii du sama place comme waa gaaya ñoo leen lebaloon mooy damay ànd ak délégation ma dem ànd ak délégation bi ñibbisi bi ñibbisee bu mu wàccoog ñoom ci loolu mu ngi nag ay layoon fii du sama place sama place mi ngi sama wetu sëriñ moo dellu topp Cheikh Omar ci jihaad ji lu mat juróom-ñaari at biñ koy junj ci Alxaaji Malik te jihaad bi lañ ko junjee mais boo dégg wax jamono day mel ni lépp xore foon la xewee ñu jox ko lañ koy jox mu ñëw toog ba ci Alxaaji Malik noonu demewul noonu mosul demee noonu ndax ca jihaad ba biñ koy njëkk ñu ci Alxaaj Malik ba na xare la boo xam ne juróom benn leer naa Cheikh Omar daanu nañ foofu te ku gën a siiw tudd bootal Samba xaa ko moo laaj Cheikh Omar ne ku ne de shahid yan man rek lay am Cheikh Omar ne ko dama nga doxantu boo ñëwee loo gis rek nga wax ma ko bu mu génnee di doxantu mu mel ne rek dañ ko jëlee ci dëkk bi rek boobu ci réew boo xam ne xamul fan la nee na muy tax ba war dëkkal ko bu ma demee ba ca déeg ba di naan déeg ba yaatu lool yaatu ba jaaxal ko mu seen ay soxna yu rafet ci biir dégg ba mu laaj leen fii fan la ñooñ ne ko fi may kaw sara mu ne ku ngeen di xaar ku def fi ñu ne ko suñu borom ko la ñuy teeru mu ne ku seen borom kër ñu ne ko bootal sàmba xaako te mooy bootal sàmba mu ñibbitee ca xare boobu ñi songee juróom benn song te juróom benneel ba la bootal daanu te balaa ñu def jihaad ba Cheikh Omar nee na tey dina am ku shahid di ñun woote na ñëpp assemblée bu mag ne tey ji dina am ku shahid ñun bi xeeri xisaabin wala iqaabin kenn ko laaj dara ëllëg sama papa mi ne si ndal xaabal nee na moom moo tëdd fii ak Alfahim Yoro maa moom nekkoon xalifa Alfahim Yoro fii ci gars yi moo yar nga amat Diop mi doomam doomam bu jigéen lañ ko may tamit moom moom moo ko may mu nee na moom Alfahim Yoro def na lu nekk pour dee ca xare boobu doon shahid bi ñuy wax su fekkoon ndénkaane ya ca xoore fond la xewe du dellu di xare ji yàlla tere muy dem di di dafa jéem a dee kon wax yi am na tuuti incohérence ok bi yàlla dogalee nag bootal daanu moom fa Cheikh Omar taxaw ci tund bi am jaaxle lool ndax lu jombul yonent bi jombul kenn Cheikh yonent bi fa tàllal loxo mi ni yàlla bur yàlla sidna ali bu yemee fii sa dina jëm fii ñaan yàlla ngir yàlla musal ko jaaxle ngi noonu keroog si Cheikh Omar Fouti ci jour boobu dafa am jaaxle moom Alfa Himera ñëw ba ci moom laal mbaggam bu teddam ni ko cheikh mosul wax cheikh ni ko cheikh ba cheikh Umar xool ko mën ko kii mën naa ci moom dara joxoñ ko cheikh Umar nag kashfu bi yëngu bi kashfu cheikh Umar yëngoo nag moom day gis lu bëri mu ne ko alfaahim kii du ko ñu rey nag waaye du ko ñu rey de ndax dinañu amal njariñ ëllëg ci diina ji ak ci tariixa bi moom alfa ni comme cheikh Umar kii dina amal njariñ ëllëg diina ji ak tariqa bi te man alfahim mayoro xaw ma sama ëllëg ndax naa doon jullit wala déet kon bu ñaar ñun ñaar bu ñu tamp ku gën a yàlla ci dund mooy moom mii ndax moo nar a yéegee diine ëllëg foo xam ne man xaw ma na naak fa yeggal wala déet dégg wax ci de tolluwaay la bu mu dindee li noon yor yëpp wàcc fas bi noonu war odul bisri mu noonu jihaatee wàcc fas bi jël buum rek waaxu wuti ne ma nag moom ba ci Cheikh Omar wala ma yem fa ba bu ëllëgee ak ànd ak moom ci Cheikh Omar ndax kii man ma ko wane yàlla ci détail bu mu ñëwee ko kooku daf ko dëbb ci bopp ñu tudd ñu ko doon woowee tubataa ci boppam ponk bi dem dañuy wax rek ne bisu dee du bisu dund waaye bisu dund tamit du naan na posan ci place yonent bi te deewul na saxaab bu ñu mas dóor jaas ci biir ba mu xotteeku mu di ko ci kanam bi indi bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan li muy ñaan taf ci biir bi mel ne mosul xottee ko loolu mooy bisu dund keroog moom Alpha bokkoon na ci bisu dund yi ndax jë paaka gobar fu ci bopp ba mu damm doo xalaat dund terewul mu ko ci kaw fas bi dóor ko ci suuf yeew ko ba mu dëgër indi ko ci kanamu Cheikh Omar Fouti yi keroog Cheikh ñetti jubb yi waa ji am jubb bu nekk faatixa la ko watee bu mu watee ba ñetteelu jubb bi daanu ci la sukk tànk yi tudd baatu seede yi nekk jullit chambre may ko wird nekk taalib Cheikh Ahmad Tijaan nekk jàmbaar ju rëcc ci jihaad yi ni ko Cheikh Amar waxee woon ko Cheikh Amar waxee woon boo demee ba Jurbel ca Kànji Kànjee moom mooy seen maam moo fa yóbbu salaatul faatiha mu ngi tuddoon Muhammad Kànji ko tudd woon ginnaaw loolu dafa doon waaye boo xam tubataa du ma tub de bu hmm. yàlla dogalee nag Cheikh Amar di delu ci xuntu ba wéraate da ngay deg li xaw ci dig li xaw ci digante digante lu ñu melal ci al alxaaj Malik kero kero bi mam alfa bëgge be ci xare ba xare bi Cheikh Mar waxon ne tay ji dina ko shahid ci ñun te mam Alpha def lu nek pour de ci xare ba sunu al xaafam nee Cheikh Mar daf ko xol bu mu yag ne ko fahim mu xol ko mu ko wana ande ànd du yow de ki ne la dee tey du yomb de ndax am na taal buy tàkk ci ginnaaw ëllëg teew yaa koy taal karol la njëkk junj si alxaaj Malik ñun wolof dañoo dañoo xam ni junj muy jiitu wax bu nu wesaat su fekkoonte ne wax na ko mu si alxaaj Malik ca xoore fonde de manière claire et explicite kon lu ñëw ba fi di ko junj loolu dégguwul bi yàlla dogalee nag Cheikh Omar di dellu si xunt ba li tubaab di wax la disparition mystérieuse dans les falaises de Bandiagara bu muy dellu ci xunt ba dugg na fa ak lu mu néew néew juróom-ñett nit lu mu néew néew xont boobu Cheikh Omar ñett nit la mujj waxal Ahmadou Cheikhou Ahmadou Ba ak Alpha Heme Yoro ndax xam na ne tubaab bi lu doon stratégie mooy acculer Cheikh mar ba mu génn territoire conquis yëpp ba mu génn Sénégal yëpp fu mu jaaroon mu defar yëpp tubaab jaar fa ma mabaat ñëw ba mënoon stratégie tubaab bi Cheikh mar comprendre loolu teel moo tax mu ne sa xont ba mu créé jël ay émissaire ku ci nekk mu yóbbu la ci ay zone pour nga sécuriser pérenniser li mu fa jotoon liggéey Mamadou Diakho ba ci la demee Nioro ku nekk ku nekk fu nekk mu yóbbu la ko ca la waxee ca la wax ak Alfayda Nioro bu mujj ne ko moom la mujj wax ak ñett ñun ñëpp ne ko incha allah dina am ku ñëw ci dëkk ba dina am fanweeri at na nga ko sa jigéen bi keroog la ko wax keroog kunaas yi ci alxajmal wax ne nijaayam ñoo ko ci tarbiya والمد إفهام من كل جاني ميوخ من أجازني خالي بفاتحة الكتاب بالنية كذا وبعدد كذا كل إجازة تنبر نفلت سيدو بانغمير إجازة أنا دبلوم كوي جوخني ما إيفالوي إيفالوي عشان بمنا ما تربية يالله دوغل أنك كرب نتيلو بيري موي لنكو مجوخ موي بنين جسن نتيلو لأشياء مجوخ مؤلفة doon nañ gis ñet yoon ñaar ñi ci kaw suuf la waaye benn bi ci kan subhanahu wa taala bi yàlla ko lemal fa ñibbisi fekk cerno mohammed lamine ay dara mi waxoon ne moom sëtu cheikh omar la moo jur yaayam ko jur cheikh omar moo jur yaayam rogi taal cerno mohammed lamine ay dara dund na 170 ans ngi génn àdduna 1986 nee na cheikh omar moo leen waxoon na leen bu ngeen ma gisatul da ngeen toppal fa xemero ba fa jant bi di sowee te ñëpp xam nañ jënt Fuuta waalo lay sawe jënt waalo sawe njàmbur noonu lay toppante ba ba Ndakaaru incha allah ba yàlla dogalee moom Alfa ñibbi si gaaya nag ñibbi si gaaya di doxal tariqa bi kër gu mag gi ñu jëm noonu fa la njëkkalal maanaam wasifa ak xaalatul jumaa xadara bu mu ko falalee nag am ci problème ak tubaab yi chef de canton woo ko ñu ne li mu doon ci Cheikh Omar Fouti jihaad ba la façon de continuer fii ñun dañ dañ ko ci fooru Dagana bi ay fan. xamal faneen ne Cheikh Oumar moo ko fa fekk ak Cendal Ghali ne ko mission bi buur yàlla teg sa mbagg dina yegg incha allah mercredi bi nga xamee ne ci lañ ko waroon a fusillé mercredi boobu la Faidherbe Bay yónnee télégramme ñu bàyyi ko mu ñibbi si kon di doxal ba moom Ousmane ñëw ci dëkk bi moom Ousmane bàyyi Cheikh Hadj Malick mu ngi doon jàngee ci daara Mahan Dabba ba ci Mauritanie fa la jàngee. ba weer àll wa ba doon fóore na fanweer bi muy ñëw ñëwee nag jàll si tànk yi di métti muy topp garab yi faj tànk yi beeg si gaaya da ci taarix ñun la da doon topp téere bi ñeen lixmiraar ñii ni watiis ñu ne war ko fu nekk amu ko mu ñëw gaaya fi lu ko amee xam ni lixmiraar ki ko bind naar gànnaar la gànnaar la ëppee fu fu nekk kon mënul jógee gànnaar jàngee gànnaar lexmeral am foofu mu bàyyi ko fa di ko wëri foo xam ni wóoru ko ni dina ko fa fekk kon circonstance moo tax mu fekk fa lexmeral mais nekkoon objectif am moo fi indi ñaareel ba fóore la nga doon jël si rek waaye jàngul bu ñëwee gaayee fii fekkal lexmeral ci yoonu Malick Sow mu ne naa ko sotti balaa may dem nga doon ñibbi Jolof bi yàlla dogal diir bi mu fi nekk nag moom Alpha gis na ko fi xàmme na moom Ousmane gis na màndarga yi feeñ benn benn ci moom léeg-léeg mu woo ko laaj ko dara bàyyi ko ba lépp daje ci li ki Cheikh Omar doon wax ci ko laaj ne ko ndax fi bëggoo fi soxna maam Asmaan ne ko man doxandéem la aw ma dara maam Asmaan mosul feeñal bëgg-bëgg ni dafa bëgg soxna maam Fawaad mosul am am na ñuy dem bay wax naan maam Alpha bi muy bi maam Asmaan bëggee Cheikh Hadj Malick dafa bañ c'est pas vrai maam Asmaan dafa mel ni tey jii ku ñëw ci dëkk xamoo fi kenn. di doxoon dem bu nu dëkk yi meloon nga ñëw di ñaan di fi ñaan ñu xalaatuñ ko moom Alpha moo ko proposé bëggoo fi soxna mu ne ko man doxandeem laa aw ma dara ne ko laaju ma ndax doxandeem nga laaju ma ndax am nga dara dam la laaj ndax diir bi nga fii def ndax bëggoo fi soxna mu ne ko sa jigéen ji ko am dina am su baax waaw yàlla dog la ci mbaaxam nag euh, mam Ousmane ni yàlla def mam Alpha taxaw ci may ko mam Fawad ginnaaw bi mu waxee ni ah, sa jigéen bi ku ko am dina am soxna su baax keroog maam Alpha moo joxe juróom-ñaar fukki àndaar ak juróom muy kaaru dugub dugubu njaxnaat moom la ñu mayee can maam Pawaad bare may ko magam may ko maam Ousmane pare dëkkal ko ci këram macha allah maam Ousmane nekk fa diir dem di ñibbi muy ñibbi nag bàyyi fi ndenkaane ci turandoo maam Cheikh Hadj Malick am riwaayaat yi bari nañ ci nekk am na ñu indi ni maam Cerno Cerno Malick Sow lañ ko tuddee bu ñu demee ca Farkoro dafa ne imaam Cerno Malick Sow la lañ ko tuddee moom bu amee bu góor nañ ko ko tuddee bu fekkente ne jigéen la mu mu tuddee ko bàjjanam waaye Cheikh Hadj Malick tamit bind na dañuy dañuy bàyyi xel ko Cheikh Hadj Malick wax na ci risaalatul latiif mi ngi wax naan samiyu taajal aarifi samiyu taajal ulama al aimma imaami daaril hijri wa nubuwa ñi moo tuddee nga xam ne mooy ndëppal borom xam-xam yi ne ko kan la mu ne imaami daaril hijri imaamu dëkku gàddaay ga wa nubuwa ak dëkku nubuwa yu nubi saasaram te foofu xel leen ci midin imaam Maalik borom ngir gi waxaat na ci beneen qasida naan samiyu al imaam al madhabi maa ngi ñu mu tuddee ki nga xam ne mooy borom ngir gi imaam ngir gi amoon na beneen xasida bu mu tamit samiyu al imam malik al ashari yi ñu mu tuddee imaam malik bu siiw ba loolu yëpp dafay converger ci benn nit imam malik borom ngir gi loolu la Cheikh Alhaaj Malik wax am na wax bu sax ne Thierno Malik lañ ko tuddee waaye nag Cheikh Alhaaj Malik lii la wax man sañ naa sañ moomee di benn wax mais sañ naa saxal waxu Cheikh Alhaaj Malik donc si moom maam Cheikh Xaaj gane àdduna moo la fa teg ko ci pérégam tuddee ko Malick ba mu ma nekk moom mu féetee ko fii waajur di féete bàyyi yar ko boo may juróom benn at ay mbokki bàyyam ñëw fi jël si ko di topp seen deret waaye bi ñu ko xam ne mënuñu ko yor ndax dañu yoon dagal sécurité am ñu delloo si ko ci nijaayam fa lay nekk dal Quraan mu jàng quran ba ba mu wàcc mu jàng الحاج fiq ba àllu am فإني بعد ما حصلت ما قدر الله لي من القرآن وأريد ابتداء قراءة علم في البلدان نظمني في سلك رجالها خالي الشقيق محمد ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن المشهور عند أهلي بألفاه ما يرى بولما كتير بن يوخ إفهام الجاني li may wax nii ma ca ne wesar di arab bu woyof bi ñëpp mën a dégg ni ginnaaw bi mu yàlla wërsëgalee ma làq leen ci quran man Maodo maanaam bëgg-bëgg dem tàmbalee sàkku ci xam-xam ci gox yi wala ci réew yi noo ko mën a déggee mu ne keroog nadama nii fii silki rijaaliha ñi ma naroon fekki am ci ñoom yaakaar ñu duy ma xam-xam sama nijaay yéegee na ma ci seen niveau waaw nose na ma ci seen ràng yi sama nijaay a shaqiq sama nijaay lenqee may ko bokk say ndeeg baay لمتن محمد تدو ابن أبي بكر دم أبو بكر بكري ابن عبد الرحمن سرج عبد الرحمن مدرمان من المشهور عند أهلي بالفهم يرو أي مقولة سوى أي بكم تطلع الفهم يرو من هو ممنك ومن جاء جوجو أخذ عند حوار فند لميور من قدرة حوار فند قرية كبيرة من قرى فتاة نيلكم من الجتاري من دك بريك دك فتاة بي بمنا منك li mu wax ci njëlbeen ga mu confirmé ko maam Alpha génnee àdduna mu bindal ko Marsiya foofu laay tëjee ngeen mën moom Alpha mu bindal ko Marsiya boo xam ni Marsiya may hommage bi ñu defal nit bu génn àdduna mu wax ci mu départ ci indi taqat dahru alal xayri di dem ba ca naal nuaatu amini sayidi fiqati xaali wa cheikhi rajaa'i kulla ma usri muy naa tàggee na ak non ak tàggekat bi ni ku mu tàgge amin yi ki nga xam ne moom laa wóola man Maodo sayidi sama sang fiqat yi sama wéeruwaay xaal yi sama nijaay la wa cheikh yi mooy sama sëriñ raja yi mooy sama yaakaar kullama usra ci bépp jamono mu bind ci xasida boobu ndeysaan leeral ñëpp diggante ak nijaayam bi yàlla dogalee nag maam Maodo am vingt cinq ans ba nga xam ni war na génn nijaayam daf ko woo ci biir néeg ni ko Malick suñu séyri bu suñu bosam moom ak suñu yére moom tamit indi ko ci kaw jëm taf ko ci kawam téye ko lu yàgg mag ñi wax nañ ne lu mu ko defal fu la ko jaaree bàyyi ko nag loolu am na benn benn ko Cheikh Hadj Malick defal mu ne ko demal kenn du la mënal dara waaye lu ma gàtt gàtt xam-xam man ma man alfa alfahim ba fu ñu takkee bu mu ngay gis dañu ngor ba dafay bisaatu fatih insha allah Mamadou nag ci dafa génne officiellement dem fii ci sancu Malamine jenn ñu njaareem dem boqal dem pàngaaw foofu sa toolu papa yi nekk foofu dagana kaw dagana jóg fa dem gàmbu ci le ci histoire duñ ko tudd ga gaayaral gàmbu ci la ñuy wax dem gàmbu ci le nag nekk fa dëkk fa dem ndar fa la nekk fa la nekk ba ba maam Ousmane am fa soxna maam Ousmane nekk mag et tout ça bi yàlla dogalee nag mu ñëw di seet si yaayam mooy année bi suñu baaxul gane gane àdduna mu ñëw seet si nijaayam ak yaayam. ñëw rek moom Alpha jël moom Ousmane rek moom Ahmad si rek teg ci tànk teg ci tànkam may ko wér tijaan mu ne ko nijaay te nga bay moom gën a dëgër tuuti mu ko kii yow ni nga nekkee sama taalibe moom noonu la nekkee sama taalibe may ko wérd tijaan keroog moom Ahmad si jóge fa am lu ñuy fatul akbar am fatxu ci saa si nem mu naat moo mën a xool nit doom ba mu suur au moins yàlla def nitu macha allah yàlla dogal nag moom moom Maodo moom continuer liggéeyam dem Njaarnde dem Dakar ñëw teewoon dellu Dakar ñëwaat teewoon toog ba yàlla mu ko fa incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah maam aram loo ku nga jaam faawaat du faar ma joom ni خاور من فوار دبلي ا آه، دلا زالانها ا آه، دين جون جو باخ ديغن جو جو فغوون دين جو جامون يالا يالا دوول نك تي ريغ واخ تي موم ييب دا فا مينغو ملويا دا ملويا موكو جوخ تي ما شاء الله ما فواد نك ما يايو شيخ سيد الحاج مالك سيني سيرين ما شاء الله ا آه، مام فواد نك دا نكو خام تي بغلو باخ xam ci teg tànkam ci sunna ba képp kuy góor góorgóorlu ci loolu mu jaral ko tànkam lépp mu jàppale la li ñuy fàttaliku rek maam Cheikh xaaj Malick ba yàlla dogalee mu jàng ci jàng jàng fii ak ci nijaayam ba nijaayam yi wàllu ko mu dem su suy demee jàngi su demee ba mu yàgg bu ñëwee ci kër gi ñëw bëgg gis yaayam ndax na ma ko mal fa ne ko day taxaw ci bunt bi na ko doo dugg bu mu génnee bëgg gis yaayam ma demee am góor gu jógee fa ne yow ni ah, de gis naa ko ca Dakar mu toog di fa ñëw maam Fawal su ji la dafa daw dabi doomam pour gis ko ndax na mën na ko aussi mu xam ne li ko ne yaayam di defar di wax nii njëriñam la maam Fawal da ci daal tay cere ñu bëri defar ko moom Alpha cere bi dem jox Cheikh Hadj Malick ne ko demal Malick boo ëllëgee da nga xam lu tax ma ne def loolu yëpp macha allah na ci maam Fawad nag jàng Qur'an jàng diine comme ni ko doom soxna di jàngee euh, doyloo euh, rakam di Maodo Fahimero mu nekk rakkam waaye ma def ko kilifaam moo tax mu nangu maanaam fa négocier euh, tàkkam ak yëpp sur son ba ñew rek mettre devant accompli mayo ko mu nangul ko lolu nak ku nangu nangu def kilifa sa sa rek ya koy def mu nekkon nit ku euh, ku exemplaire ci dekk bi ci colkaam ci wayam ci jëfinam ba euh, buy sangu di dex ka sax yere bi non noonu sang non mu non sol noonu lay duggee ci biir ndax fegu ndax sàmm sàmm am sharia den da ko xam ñu nox ci mom ba suba du jeex waaye dañ koy tënk foofu rek ndax mayewu ko waaw nit ku baax la woon daal doon def lu baax nitu yàlla moom nit bu nëbbu te mu am mbaax yàlla moo lay feeñal moo tax jéem lu feeñ amul njëriñ bu fekkee li nga nekk dëgg la nekk ci li nga nekk rek yàlla mooy xéewal ñëpp ko néew ci dëgg nga nekk moom fa wadd bi yàlla dogal moom alf am Cheikh Hadj Mal dem ngambu ci li mu dem maa nga fa ak ñoom ñu nekk ngambu ci li ba yàlla dogal moom fa wadd bu mu génnee àdduna fii ci gaaya ci xeer bi noonu toog ci dégg bu ñuy wax dégg faawaat ndax bi ñuy dem gàmmu ci dafa dégg boo xam ne yeggul sa tool ba mais dégg bu ñu toolam moom far laajte ne fan la ñu ne fii de benn dégg place ndox la moom moo ko tuddee dégg faawaat daan jóg bu daan fóot ñëw foofu toog ci xeer ba bu def leneen kazaalika bi yàlla dogalee nag maam faawaat di génn àdduna bi moo déplacé wu ba ñëw nekk ci bërëb bi fii ci biir mag ñi wax nañ sax ne lu mu naan déplacé wu ci ay ci ay temps yàlla def sama benn xarit ñëw fi nag jigéen la tuub tuub benn sax ndeysaan ñëw toog fii ba mu yàgg bu ñu demoon moom Alpha man dama yëg benn magnétisme bu nekk di xeer diggante xeer bi ak Mame Fawade ma kon ñaar ñi sont liés kii fu mu nekk rek foofu la kii di nekk man ne xeer bi nag yàlla moo def lii pour wan nit ñi cër Mame Fawade man du ma bëgg a sax di wax ci xeer bi ndax bëgguma ñu jaamu xeer bi ndax ñu ay julli lañ sinon day jur ngay jaamu xorom donc xeer bi dañuy jàpp ni lu lépp su amee yàlla day wane rek cëru Mame Fawade kon Mame Fawade mu yëngal xeer bi kon moo ko bu doole macha allah. waaw ñu ngi ci euh, kër gu mag kër gu mag nag ci dëkk fu ñu ko waxee rek ñëpp xam ne fii la donte kër boo gis daa dina am ñu fa jógee dem ci yeneen kër ñun ñu ngi dem suñu kër gu mag mais gaa yi boo ñëwee gaa yi kër gu mag fenn la may fii ndax fii la ñuy seen waxtaan yi fi lañ koy defee. li ñuy nas fi lañ koy nasee li ñuy jéem fi lañ koy jéemee tamit loolu dafa yàgg nag ndax euh, lu fi jaar ci histoire ak euh, ci takk Sall Xaaj Maalik nag fii la gane àdduna waaye jiitu nag fii la yaayam am fa àdduna fii la papaam fii la nijaayam Cheikh moom ak Fahim Yoro gane àdduna ginnaaw bu ñu fa gane àdduna nag nekk fi nekk nu doomu soxna jàng ba am lañ mel nañ mel am lañ am bi ma am xaaj ma ne ganee fii àdduna ci kër gi nag may faral di wax ne liir moom du gàll lu mu nàmp liir lu mu nàmp rek lay gàll nit lu mu déggul du ko xemem ba koy bëgg Cheikh xaaj ma ne fii environnement bi mu juddoo dafa daf fiy dégg bis bu nekk naasiril xaq bil xaq wadifa ajum bu nekk fi dégg xadara mënul bëgg leneen du loolu boo déggee ñu ne dañ ko wax ni ko moom alfandiku Néegu bu la ko laajul bu ko ko jox wird ku ko bëgg yaa koy laaj ñu gaaral la chart yi nga nangu donc ay jeu de la rek ah, lu normal la te moom moo ko mënu ko laaj. Cheikh Al Hadj Malick nag doon nekk ak dund ba xam naa ci yenn yenn benn yoon ah, tàmbiyaam lu ci ëpp ca tool wala dund ba fale toolu nijaayam boo xam ni mbir yu yéem a fi xew ba ba muy nekk suuf ba mu fay dëkk loolu sa waajur xam na ko ak ma faal macha allah. Euh, diggante boobu ak fii la doon nekk macha allah nekk fii nag ci nijaayam mu jàngal ko fii ci kër gi yar ko fii ci kër gi may ko wérd fii ci kër gi may ko ijaaza fii ci kër gi soo ko fi mu koy yeewee fii la ko yeewee béréb bi mu bi mu seqee moom teraanga ju mujj ci ginnaaw la maam Alpha Ibrahima moom Cheikh Hadj Malick bi yàlla dogalee tamit maam Maodo bu mu mosaan jóge fii di nooraani di dellu si fii la fekk nit bàyyi nijaayam mi ngi nettali moom Maodo wilaaya nijaayam kero bi nga xamantene daf ko tagu dem norani uti uti lu uti uti ci tole yeeg mu ne ko ah ma di tanga baye ba di won mu ne ko ne yaay ren paren pare ndox te am naa yaakaar daal ko ah, bismillah mu dem bu ma demee ba campagne ba diex bu sen ko muy ñew loxo neen yorul dara bu mu ñëwee Mamadou ko nettali bu mu ñëwee ba dul dëkk bi mam ni yaam gis ko rek di muñ mi ex man ko ma rek ñew nga mu ko waaw mu ko legi nak man ko awma dara ni jaay piti lek nu suñ tool yëpp mu ne ko te ngaa bàyyi ba déwén déwén mu ko waxoon bay bay ba campagne bi ñew rek mu ñewé mom moko fatte fàttali ne ko Malick xanaa sa campagne bi waxa dafa dem mu ne ko nijaay fàtte woon naa ko sax de mu ko ñewal ñew bu ñaanal mu dem bu bisé nak ni jaay man leen mu jaaxal da ren piti nu mu bari te suñu tol benn piti laalu mu ne ko Malick lii daal gisaloon moo tax ma la ko doon wax ko alhamdulilah euh, moom moo xam nijaayam nijaayam moo ko xam maam Maodo nag euh, ba muy dem balaa muy dem di jóge fii euh, nekk na fii ak ay rakam mu ngi nettali rek te maam Maodo te maam Ayda bi jur sama papa mi ñuy nettali ca ngàmmu ci le bi maam maam Maodo ak maam Maodo nekkee fii ci kër gi di waaj pour dem ngàmmu ci le sama maam nee na bi jur sama papa nee na xam na ne ñi fanaanawuñ dara te dañuy dem dañuy bàyyi tool waxu leen dara jóg ci guddi gi dajale ay wóor ak ay ay ay ak yooyu dëbb ko ci guddi gi araw ko ci guddi gi laax ko balaa fajar di xar nee mu bàyyi leen ñu dëdd rek moom mu defar soow mag yëpp yéen rek topp yoon bi. nen bu ñëwee moom ay dana bu ñëwee ba nga am ba ci leen seen leen maam Maodo ne ne Mawlud maam Mawlud mu di sama loolu kee de daf mel ne pël la pël buy sipp woo ko muy ñu si sow bi amul xool ko rek muñ noppi mu ko waxaat tamit kee sama soxna la mu ñëwee wàcce daan lax bi maam maam Ayda Jaw nee na lekkee ba pare maam Maodo def ba doon jël jël ñam bi di ko si xal muy lekk deset bi ba mu jeex mu ne ko waaw kay jaw euh, yenoon nga daw mu ko yenee bool bi daf mel ne àdduna lañ ko yenn te bi muy ñëw bool bi di sewul noonu nee na bu muy génn di ñëw xamul na la def nee na dox na tuuti marul sax cinq minutes yegg si si biir kër gi te ngàmb ci li ay vingt cinq kilomètres la sore na te fii wax loolu Mamoor Jaane fa ak moom sama papa di nettali bu nekkee xale bu ko Cheikh Xaaj Mal ñaanal moo amee quatre ans ñu juróom nettali di di di baax baax yu xew ci seen diggante moom moo du nag lépp lu ko nijaayam waxoon ci njabootam def na ko ndax moo yar ay doomam yu góor ndax moo leen féetewoon mag bu mu bi moom bi mu demee ñoom ñu nekk fii diir ba dëgër nekkoon ci moom faxa so maam war woote yónnee la ñu ñëw fekki maam Cheikh Hadj Malick moo leen jàngal moo leen yar moo leen tarbiya moo leen may wird moo leen may jaasu kon ndax seen bàyyi may leen lépp lu nijaayam doon xaar ci moom def na ko ci njabootam macha allah ñu ñu tënk ko foofu rek bu beneen jamono ah, ndax mbiru Cheikh Hadj Malick ak gaaya ak Alfayda Mero mu leen ci ay minutes yu gàtt. bu ko yoon mayee rek jot mayee ko incha allah ñu ñëwaat ci ba axir dawaan alhamdulilah rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bëkkale karamaam aram loo ku ma jaam faawaat du faar ma joom ñi ne दरान जाम जाम